salaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 7 ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen dalal euh, tey ñoo ngi fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu ngi ci faculté des droits ñu diggoon fii tey euh, doon taseek suñu benn kilifa du étudiant au niveau de la faculté des droits doyen ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fii man Diomaye Sène laa tudd. ñu fekk la fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ndax rek mënoon nañoo xam euh, lan moo la indi fii. li ma indi fii de euh, dama di wut xam-xam bu yokk ci xam-xam bi ma xam. ndax dañu ne boo buggee xam da ngay jege ku xam mu xamal la ci li mu xam ndax nga xamal keneen mu xam dama yaakaar ne loolu wutul ay at loolu moo tax ma ñëw fii loolu bokk na ci li tax ma ñëw fii. Euh, ndax rek mën nañoo xam ci fan nga euh, fan ngay jànge fii fan ngay wutee xam-xam. fii balaa maa wax. fi may wute fii fan laa fi wute xam-xam damay wax ci xam-xami nit ku ñuul ba noppi door a ñëw ci xam-xami école yi nga xam ne moom la fi tubaab yi ubbi pour xam-xami nit ku ñuul maa ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax Toucar arrondissement de Niakhar mairie de Ngayokhème village de Toucar foofu laa defee sama école primaire balaa ma jàll foofu danaa la wax loo xam ne bokk na ci li ngay wut ndax jamono jooju kayiti juddu amul woon. Euh, loolu mën nañu xam rek ci ban année la woon. moo tax ma solli ko. année boobu li mu ngi nekk 1949 1950 dëkk bi ma juddoon nag Escale la maanaam point de traite dañ fa doon jaay ay gerte muy dëkk bu mag tubaab bi samp fa école waaye école bi amul woon effectif li ñuy wax effectif ay élèves. commandant de subdivision bi woo chef de canton bi ne ko dangay dugg ci kër gu nekk nga génneel ma fa ñaari tur waaw kay chef de canton bi tuddoon maa seen seen kooku sax sama mbokk la mu dugg ci kër yi liste bi mat na liste boobu mu jox ko commandant de subdivision bi ca commandant bi turam sax téye naa ko mu ngi tuddoon Abel Bourlon mu def avis favorable tout le monde est né <laughs> tout le monde est né boobu sax fekk na ma nekk mag ma dugg école. yaa ngi tolloon ci ñaata at. 1949 1960 non 1957. ma passé examen d'entrée en sixième à l'école de Ndoug en Fatick j'étais premier sur la liste je suis affecté à Saint-Louis à l'école des otages xamuloo otage de mooy chef de canton bu ci nekk dañ doon jël doomam yóbbu ko formé ko pour mu nekk interprète diggante nit ñu ñuul ñi ak tubaab bi bëgguma war a nekk interprète ma ñaan dem collège technique bu Ndar ma nekk nag technicien foofu école d'enseignement technique boobu amul baccalauréat amul bureau bi da ngay jàng rek attestation lañ lay jox man ma def candidat yi am bureau bi foofa nit ku ñuul amul woon droit am baccalauréat. <laughs> wax naa loolu ci ci wax ji ma ko répété waat. indépendance bi ñëw 1959 waaw kay ñu ne Sénégal soxna ay aviateur ñu ñëw ca école ba affiché mais Ndakaaru fii lañu ñu waroon a déposer dossier yi ma jóge daan ñëw fii ministère de l'intérieur bu léegi foofu la état major général de l'armée de l'air nekkoon ma déposé wa sama dossier ñu yóbbu. dossier bi à la base 160 militaires base aérienne 160 mili militaires de Ouakam ñu woo ma gendarmerie de l'air ak officier supérieur bu armée de l'air passé ma examen ma admis waay bi ma admis ñu indi avion bi ma dugg wuti avion euh, euh, France ban école ci France école d'enseignement technique de l'armée de l'air pour former les premier aviateurs sénégalais ma nekk foofu ba am diplôme mécanicien propulseur d' avion navigant et non navigant cest dire avion bi bu nekkee ci kaw maa nga fa bu nekkee ci suuf ma ubbi moteur bi defar ko daldi di dellu siwaat fii sama diplôme dugg groupement aérien sénégalais moom la ñuy wax doon wax GAS Ouakam foofu liggéey bi nekkoon liggéey boo xam ne mooy li ñuy wax EVASAN évacuation sanitaire moom la avion bi doon def di dem di dikk sama yaay yaaya nga tukaar mag la woon lool bu dege avion bi riir muy jooy naan avion indil ma sama doom ñu bind ma lettre ma démissionné. ndax ndax li sa yaay doon wax. waaw waaw. ma démissionné bàyyi aviation jeex na ci man dem ci moom mu wer bi ma gisee def ma ne <gasps> ah, doom ñëw nga ma ne ko waaw mu ne ma waaw kay xamatuma woon ne danaa la gis a ngi dégg wax ji de ma toog ci moom ba mu nekk nekkaat nit ma ne ko yaay ah waaw loo wax moom lay def mu ne ma dellul nag uti liggéey foo dem yàlla na nga jiitu sa moroom topp waaw kay ma dellu siwaat fii Ndakaaru bi ma dellu seen Ndakaaru office des anciens militaires fële ci biir dëkk ba ubbi concours concours yi gardien de la paix les gardiens de la paix GMI groupe mobile d'intervention ma passé examen bi admis loolu la année bi moo nekk année 1967 gardien de la paix ñu yóbbu ma groupe mobile d'intervention fële ci boori géej ma ne fa ma ne fa ba am fa presque fukki at gardien de la paix gardien de la paix amatul léegi agent de police moo am parce que gardien de la paix c'était un homme de l'ONU nekk nga foofu euh, maanaam lu toll ci fukki at. waaw soixante soixante dix. moom laa wax duma ci dellu si waat ba ma defee noonu j'occupais un poste d'emploi réservé defe naa xamu leen lan la emploi réservé France dafa d'accord Sénégal d'accord ma nekk foofu aha ah. tangi Senghor la woon Léopold Sédar Senghor comme police la woon amoon na fa kenn jom koo xam ne moo doon diriger police ñu koy wax Bafodé Dioukoury di xool dossier ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo nekk au GMI e ba gis sama bos dal di ma woo ma ñëw mu ne ma mais lan ngay def fii booy yow mën nga nekk leneen waaw. ma ne ko kon nag ma defi leneen ñu ubbi. concours yi agent breveté des douanes ma dem école nationale des douanes waaye yow sur véhicule bi jeex ma fekk fa benn tubaab boo xam ne bugguma woon ma xul ak moom mu daq ma <laughs> mu ngi tuddoon Richaud douanier yi nekk foofu yëpp xam nañ ko ma xul moom mu daq ma ndax dama ko ne am naa njàng dooma dooma woyofal réew mi réewu Sénégal waaw bi ma dàqee xam nga lu ma def ñu ubbiwaat concours pour recruter des agents d'assiette et de constatation des impôts et des domaines ma passé examen bi admis dégg loolu ma la mille neuf cent soixante euh, neuf 70 ma admis amul woon école ñu yóbbu ma la direction générale de des des impôts et des domaines chargé du recouvrement te recouvrement dafa am lu ci ni di recouvrement la fonction principale de l'État déglu leen di vous êtes des étudiants la fonction principale de l'État c'est le recouvrement xam liy rentré ni mu toll et la distribution distribuer entre les citoyens fonction boobu laa nekk jusqu'à ma retraite qui date de 2000 hmm. ma à la traite xool samay kayit yëpp amul baccalauréat <laughs> ma ne barke yàlla dana am baccalauréat waaw dégguloo li ma la wax ci dellu si waat ñëw office des gens euh, office de du baccalauréat fii fii fii derrière foofu la nekkoon informatique mënumaa jël parce que xamul sama naissance ah, chef bi nekkoon nag jëwee quand te créer un à toi fichier spécial créer ma fichier spécial pour pour me subir les épreuves du baccalauréat ce qui était étonnant jaaxal ñu bëri moo di épreuve sportive parce qu'il faut le sport. Nous programmons au lycée Wawara Noël en même temps que les jeunes comme vous. ma yore ñetti abdou ak benn saako do boo xam ne dama ci def sama tenue sport ak samay dàll je me suis présenté à l'heure bi ma ñëwee ci chef bi chef bi ne ma xanaa sa doom moom nga indi pour épreuve yi ma ne ko seetal tur mu seet tur bi ma génne sama dentité tegal ko ci taabal ji mu ne ma yow la ma ne ko waaw mu ne ma ah ci weti fi mu toog am na benn box boo xam ne mën nga faa solu ma dindi euh, grand boobu bi dindi tubé ji dindi kii solu cëpp cëpp ci wetam mu ne ma ii yow je vais t'envoyer au terrain ci fais partie du groupe 24 dépêche vous montrez le document là au chef du groupe ma ñëw fekk chef du groupe bi di di hisser la barre pour son en hauteur un mètre cinquante mu ni ma yow la mu ni ma mu ni ma da sote ma ne lay sote ko mu yuuxu élèves yëpp jàpp seen gémmiñ mu ne ma lan ngay def ci course des des fonds ma ne ko huit cent mu ne ma aw ma ne nii pré parté record bi normal lool étudiants yi dañu jënd kee kees yi boisson sucrée sur place pour man donc baccalauréat ba ma ko amee laa ñëw inscrire fii première année deuxième année de licence maa ngi ñëw rek capacité Parce que je voulais augmenter mes connaissances. J'ai commencé par deux ans de capacité. Yoga année de licence, première année de licence, deuxième année de licence, troisième année de licence, madame Nag études approfondies. Je suis venu ici en 2004. ñu door maa yóbbu Master 1 Master un ma def fa deux ans master 1 bi ma defee deux ans ba pare ma dem master 2 ci master 2 laa nekk léegi terminé naa sama diplôme ngi nii tourné ko le sage de la promotion 2017 2018 kii rek laa soxla woon am naa ko bon professeur mais professeur tout ça toujours là à m'écouter ils vont savoir que j'ai toujours travaillé travaillé essayer toujours acquérir des connaissances et je suis un exemple pour les personnes âgées je suis un exemple pour les jeunes je exemple pour les femmes ça je peux vous le signaler et vous signaler autre chose je ne dois pas le dire, mais je peux le dire quand même, parce que j'ai élaboré mon mémoire de thèse. Le mémoire de thèse est là. Voilà. Comme j'étais à la Direction générale des impôts et des domaines, mémoire de thèse, je l'ai axé sur l'immobilier, le foncier sénégalais, du Lamana, aux colonisateurs xamuloo mooy lamana lamana dans le temps c'est le laman qui était propriétaire et gestionnaire de la terre avant l'arrivée des tubaab vous pouvez regarder parce que tout ce que je vous dis je dois le dire prudemment sûrement calmement mais publiquement parce que j'ai des enfants plus âgés que vous mes enfants, j'en avais qui ont été à l'université ici. J'ai d'autres qui sont à l'étranger. Et ils me félicitent, je, les fél je leur félicite et on se félicite. Mes deux filles étaient ici à la faculté de droit, je les ai débouchées pour les amener dans l'armée. Elles sont sorties, l'université a besoin d'elles, elles m'écoutent, dans ce que je vous dis. Donc j'ai honte de mentir. Alors avec ça, ce que j'ai à vous ajouter, c'est que en France, je pouvais bien me marier avec une blonde. Je refusais la nationalité française et je suis revenu au Sénégal. je ne voulais pas être enterré dans la neige. Ouais, ouais, j'aime mon pays bien ensoleillé. D'ailleurs, le Sénégal bat le record mondial de l'énergie solaire. Je ne sais pas si vous retenez ce que je dis ou non. Le Sénégal, ah, le Sénégal occupe le premier rang de l'énergie solaire partout, il fait beau. Et c'est un pays plat. Nous n'avons pas beaucoup de montagnes ni de vallées. Le Sénégal est honnête, courageux. C'est prouvé lors des, dernières guerres. Et j'ai fait une école militaire. Gardez votre J'avais dit au début que j'aurais préféré à ce que le drapeau flotte devant moi. Je retiens toujours cette formule-là. Aimez votre pays, soyez digne, soyez intelligent, apprenez. l'exemple de Kéba du juge Kéba qui était rural comme nous. Il est né à Kaolack, et il nous a quittés en 2017. Et vous êtes ici dans un endroit qui vous ouvre beaucoup de portes pour le développement de votre pays, le développement de votre continent, le développement de votre famille, le développement de vous-même. On sourit aux lèvres. évidemment, le droit, dans le droit, il y a aussi un aspect que je vais citer ici, je ne sais pas si on va m'écouter ou non, mais je vais citer C'est-à-dire, justice sans châtiment, commission, vérité et réconciliation. Si vous retenez ça, ça Si vous ne retenez pas ça, essayez de retenir. Justice sans châtiment. Commission. Vérité, réconciliation. Parce que la vérité du juge n'est pas la vérité vraie. C'est une vérité des lois. Et la loi n'est que l'expression du droit. Qu'est-ce que vous préférez, le droit ou le, la loi? Le droit. J'avais dit en introduction tout de suite, tout de suite, liberté, tu es libre là où tu es. La responsabilité, tu as la responsabilité de m'interroger. Du journaliste, toi, tu es un journaliste. Sous l'ordre juridique, le droit européen et international. C'est ce que j'avais dit en introduction et c'est ce que j'ai dit en conclusion. n'existe pas, mais c'est ce structure qui existe par rapport à ce qu'on a dit. Si je dis ça pour la jeunesse, je dis ça pour les personnes âgées, je Mais attention, je suis un omnimiste, droit de l'homme et du citoyen. L'Afrique a son droit, ça très longtemps. Hein. Qui peut me parler la première constitution de l'Afrique Kouroukan Fouga. Kouroukan Fouga, qui date de en ce moment-là, il y avait ce qu'on à côté de la constitution africaine. Et la constitution, vous ne savez même pas ce que c'est que la constitution. Si, si, de tout ce qu'il comme coutume, tradition et us. C'est ce que les révolutionnaires de 1789 ont, ont fait

il y avait déjà les courriers. On parle maintenant du syndicalisme, le MEDES. ah moom waaw ci li may wax ay wolof la le MEDES hmm? le MEDES tu sais ce que c'est Mbagnick Diop président de MEDES les entreprises réunies ah y a qui font des efforts Babacar Ngom, avec les poulets que vous mangez ici. A commencé, par une, euh, euh, poule de, la basse-cour de sa mère. <laughs> Et vous aussi commencez par la famille. Et qui encore? Le monsieur là qui s'appelle Mboub, Serigne Mboub de chambre de commerce, a commencé par le Dara. alxuraan ay <laughs> interview ce qu'il est maintenant PAMECAS et cetera et cetera le Sénégal se développe il y a qui ne cherche qu'à développer le Sénégal cherche à le développer intellectuellement cherche à le développer économiquement à le développer socialement à le développer avec beaucoup de dignité si vous voulez être comme ces gens-là vous-même journaliste, vous êtes impliqué. Je vous remercie.